mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyu baax a baax fi ñu leen daan nuyoo yéen ma ko gën a xam làmb ak li ko wër yëpp Leewtoo ci loolu lay dox léppi làmb dañuy dem indil leen ko yéen ñuy suivre ci internet yi ñi dëkk Sénégal ak li ko wër waaye ñi ne ci diaspora bi tey ma ànd ak Moussa Fall ci caméra bi ak Modou Mané di nuyu mbokki yi yëpp rawat na équipe bi ñuy liggéeyal Ndeye Kumba Fall ak mboolem ñi fa ne DG Thialis ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak Abdourahmane Diaw waaye Moussa Fall tey dañoo ñëw fii ci waggu ñaay seet si ki nga xam ne moom mooy président Gora yi di président jeune amateur mu feggoog ki nga xam ne moom moo di doomu ndeyam di vice président moom tam di ibre Diouf bu Serigne Mbacké Madina yaakaar na mën nañoo egg foofu lamb am tolluwaay waaye tolluwaay boobu dañuy ñëw waxtaanee ko ndax mbir mi dégg naa duñ ko paccoo dañ koy pencoo président ñu ngi lay nuyu. waaw Birame maa ngi lay fay. di nuy waa Leewtoo di nuyu téléspectateur yëpp di nuyu vraiment sa caméraman di nuyu ñëpp di nuy monde lamb yëpp. Mhm. président Ibra maa ngi lay nuyu. Euh, grand ñu ngi lay fay nuyoo bu baax euh, di nuyu mbokki Leewtoo TV yëpp euh, di nuy sa caméraman di nuyu président Gora di nuyu waa station de seen amateur gi yëpp rek di la siyaare bu baax di la dalal fii nga ñu fekk ci waago ñaay di bërëbu liggéeyukaayu les président Gora Ndoye ñu ngi lay fay nuyoo te di la dalal baax baax. Euh, président dañu jubal directement lamb dafa am amateur am promoteur am manager am mbër yi bëre waaye am CNG bi ko coiffé ci biir CNG boobu mu am ñoo xam ne dañ di yónni muy arbitre ñuy atte tey arbitre yi ne ci coow coow li mooy lan grève nañu dootuñ ko wax kenn waaye ci grève ba mu am li ci rot ñu dégg ne ñii dañ leen a suspendre ñaari at ñi juróomi at kenn ci ñoom muy Sitor ñu ne dañ ko radier à vie dootul arbitré waaw Birame comme ni ko Ibra waxee rek maa ngi koy nuyu moom tamit euh, sama vice président nga xamante ni vraiment bi mu ñëwee ba léegi moom tamit mu ngi def liggéey bu am solo ci jeunes amateurs di nuyu waa association des jeunes amateurs yëpp waa lii xew nii moom vraiment nekk na loo xamante ni Birame neexul kenn neexul kenn ku nekk ci làmb parce que yaakaar naa bi ñu ko déggee démb képp koo xamante ni yaa ngi ci làmb rek interpellé nga ma xamal ma ni ma carrément lii CNG bëgg def du yoon parce que lamb yaakaar naa famille la te famille yaakaar naa bu réeroo amul it dañuy wax ñàkk waxtaan moo am bu mbir xewee jàpp naa ne war nañ ko mën a waxtaanee ñu toog ci pencoo waxtaanee ko ndax fii Sénégal la amul lu ñu fi mënul lijjanti mais yaakaar naa lii xew nii nekkul lu kenn kenn kenn ku nekk ci lamb rafetlu parce que déjà lamb dafa nekk ci crise nekk ci problème problème koy mooy problème bi mooy que ni tey jii combat yu mag yi taxawul ñu ngi koy laajte boobu ba léegi sponsor yi ñu ngi daw lamb nekk ci benn problème boo xamante ne tey ñu ngi fexe nu sponsor yi ñëwaatee affiche yu mag yi ñu doon am ci yenn journée yu mag yi mu ñëwaat ñu gis lii nii xew nii nekkaat beneen problème waat parce que arbitre kenn mën ko génnee ci lamb per biram tey lamb booy dem da ngay yàlla fekk fay arbitre yu vigilant yu mën a arbitrer parce que am na ci yenn combat yoo xam ne arbitre rek moo la ci mën génnee mais lii xew nii nekk loo xamante ni kenn rafetlu ko parce que ñu gisee lu leen métti ñu wax nit ku nekk am nga boo nekk am nga droit boo nekkee sa kër ba gisoo lu la neex mais nga taxaw ne lii ma gis nii neexu ma mais borom kër day waxtaan ak waa këram mais bu problème amee nga jël sa yat dóor bu problème amee nga jël sa yat dóor loolu kenn rafetlu ko parce que fii Sénégal la dëkku teranga la lépp loo fi gis dañ koy waxtaanee waaw. da nga jàpp yat bi dafa dal. non si yat bi dafa dal parce que li ñu def nii ku mel ni Sitor nga xamante ni plus de ñaata at mu ngi nekk en service di def liggéeyam ñëpp xam ko tey affiche yu mag yi fi am yëpp Sitor moo koy arbitré. nekk arbitre professionnel maa ngi ko déglu keroog léegi Tigre mu ne bu ñu koy woo ñu ngi ko fekk Algérie muy arbitré ay compétition yu mag kon kooku du ko ndaw ci li muy def maîtriser na ko nekk ci professionnel aussi ñoom ñi ci topp ñoom Babacar ñoom ñoom ñoom Malick Ngom comprendre nga ñoom ñëpp def ay formation ba génn ci li nga xamante ni mooy arbitrage mën ko aussi waaw kon ñooñu tey ji nii bu fekkee tey ni dañu gis lu leen metti mais li ñuy kaas am nañ ci droit parce que nit ku nekk ñaan yàlla fi nga nekk di liggéey ñu assuré la bu ñu xeebee li ñu leen di fay aussi mais am nañ droit wax mais loolu aussi ñu ngi ciy interpellé ministre sport bi muy Matar Ba parce que yaakaar naa moo fi teg CNG bi te lii nii nekk na problème boo xamante ni tey ñu ko seetaan parce que lii dafa nekk loo xamante day wàññi làmb te làmb soxlawul moment bi loolu euh, nga président wax lii xew day wàññi làmb te lii làmb soxlawu ko moment bii te nee na yet bi dafa dal te dañ ko war a waxtaanee da ngeen jàpp ne yéen en tant que amateur dañ ko waxtaanewul wala nan la demee noonu. waaw jërëjëf Père Birame xam nga wolof dafay wax ne nañ ko def joo dégg nañ ko waxtaanee koy jiitu ñu ngi nuyu nag monsieur le ministre Matar Ba di suñu mag di suñu xarit nga xam ne moom itam ku ñu yaatal la ndax damay wax ne àdduna dafa gudd tànk te làmb dafa yaatu yenn saa yi ma dégg ñu bëri di wax naan séentu asamaan la jarul buuxante mais am na lu gën a riche loolu parce que ñaata personne ñoo ciy dund kenn xamul nu mu toll kon yaakaar naa arbitre yoo xam ne. tey waxuma la sax si toor mais Babacar xoolal sest bi mu def diggante Eumeu Sène ak Modou Lo mais arbitre yi mënuñu ko keroog man suñu première journée bi nga xam ne ñi ngi président da ko doon organiser xam nga jour boobu lañ gërëm mooy le 29 bi arbitre yi man ci njëkk a seetlu ne arbitre dañoo gërëw ci laa bokk maa wax président Goré ne ko arbitre yi de ni ma seen ñu dawee non du arbitre yoo xam ne ay professionnel lañ ndax fu mbëri aw dañuy daw topp ci ñoom. loo bëgg a ñi ñu indi fi mu ñu arbitre xamuñu règlement yi à ko dañuy tënni rek des fois heure bi dina dem ba tegal 5 minutes 6 minutes te duñ ko xam kon ñooñu tey euh, même président bu nit ki su nekkee ci këram am na droit dajale ak njabootam waxtaan ak ñoom kenn ku ci nag am na droit wax li ko metti mais su fekkee doo ko saafara mën nga koo bàyyi ci liberté mu dem mais li metti mooy sanction yi ak rajo bi nga xam ne à vie dootuñu arbitre loolu moom rafetlu wuñ ko te maintenant nañu xam ne lii làmb la. te kenn ku ci nekk da nga ci am part de responsabilité responsable nag muy promoteur bi muy euh, euh, mbër mi muy ñun ñi nga xam ne ay amateur lañ ndax ñun kenn mënta dem kenn mënta tëgg lam sans amateur ndax association boo xam ne dafa boot 303 personnes CNG amul 300 personnes yu fay liggéey yu am carte amu fa beneen jeune amateur ñu am 300 personnes yoo xamante ni képp ñu nekk am nga carte saa boo jógee li lay topp dina ëpp cent et personnes kon amul kon yaakaar naa lépp loo xam ne tey dañ koy def ci lam war nañ koo jël ay mesures sévères yoo xam ne kenn ku ci nekk suñ ko déggee nañ xam ne lii xel nangu na ko mais li xel nangut mooy sama bopp day miti war a dem jëndi compromis ñu ne la compromis amu fi te na ci biir mais loolu kenn xalaat xel nangu ko sax dangaa bëgg a wax ne li faj problème bi mu nga fa mu nga fa bien sûr parce que su fekkente ne da ngaa am lu la metti saw dal dag mu wér la ne boo demee ci kii di defar dal mu defar la ko nga ñëw ne borom dal yaa ngi nii da am 100 francs ngi defaral mu ne duma la ko defaral te mu wér la ne am na puso am na am na wëñ mais daf ko bañ nag mais mën na ko nañ waxante li fi nag gis nga am na loo xam ne nii du lu ñuy négocier dafa nekk loo xam ne nii total parce que ñun ñi ne ci lam ay boroomi xel lañu ñun dañuy dëgg bee samedi dëgg ko dimanche dëgg ko ajjuma kon lu ne ci lam xam nañ ko loolu moo gën a ndaw mais arbitre yi ay arbitre yoo xam ne ay international arbitre lañ xam règlement lam am na règlement yoo xamante nii su dëgëree tey ñoom ñoo jàppale seen mais suñu téyoon seen loxo am na règlement yoo xam ne ñun ñi seetal sax xam nañ ne du règlement yi dara parce que kenn wala diw ko amul sens day yàq làmb ñoom ñu jàppale ci CNG bañ tollu fi am nañ droit kii fayee ko fukki junni dem bu mu wér ko ne fukki junni arrangé tu ko am na droit kaas ko soo ko yokkal nga yokkal ko soo ko yokkal nga ne ko ay la kat fii laa mën a yem soo gisee sa bopp continué soo gisee bopp nga arrêté kooku sa sala problème mais li ñu mënta mooy taxaw ne carrément li la doo ko fi jooyee ba pare walbatiku teg la ay daan yoo xam ne tegut fen loolu la ñuy ñaawlu ñun waa Sen Amateur te ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg loolu képp ku nekk ci lam di dund ci lam war nga taxaw carrément ñu xam ne arbitre li ñuy kaas seeni droit ci lañ nekk réew mi nag bu ñu demee ba kenn amatul droit kaas sey droit ah mais kon ci man réew lañ nekk mais ñun duñ xam loolu ñu xam loolu liñ ci war a wax mooy que ne nañu xam ne arbitre yi muy tey muy suba ak fépp fu lam mën a am ñun nu gis leen mu nu gënal suñ demee nag ba gisuñu leen dinañu génne yeneen déclaration ak yeneen wax yoo xam ne nii dañ ko doxal yoo xam ne sax du du bokk ak yi wax parce que daf noo metti parce que ñoom dañoo bokk ci lam di dundal lam ku ci tey li dappee 74 ba léegi ñoom ñoo fi nekk di di arbité ñii kay xamoo ci kenn kenn xamu ci kenn booyu ndaw yi seetaan lam li tàmbalee seetaan lam 2010 sax koo ci wax mu wax la aar mu wax la Sutoor wax la Babacar ak keneen ak keneen kon bu ñu xëyee xëy bëgg ñoo andil ay arbitre yoo xam ne nii xamuñu ko maîtriser wuñu sax règlement yi def ci CNG bi su boobaa lamb la ñuy yàq rek. président. Mhm. su boobaa lamb la ñuy yàq. Mhm. arbitre yi xese ñëw. Mhm. ci combat yi ngeen ci jot a ñam. noo leen ko dundee dafa awul yoon wala nan. waaw arbitre yi combat yi passé dimanche passé moo si mujj combat yi ndaw yi am na ci trois combats yoo xamante ni victoire yu ñu joxe ñun amateurs yi ànduñu si. mu nekk loo xamante ni dèjà ñun ñu ngi wax ñoom ñu ginnaaw indi ñoo xamante ni tey maîtriser wuñ sax lamb ji. am na ci benn buur boo xamante ni dañ ko dóor mu daanu arbitre bi ñëw ne ko da ngay bërewaat temps bi day jeex 10 minutes la ñuy bëree ñu ñu ané arrêté combat bi ñu noppalu 5 minutes ñëwaat temps bi day dem ba romb 10 minutes ñoom duñu sax maîtriser que ni 10 minutes jot na parce que duñu duñu ay professionnel ay amateur lañ ñu leen ci àll bi indi leen lamb nag tollootul foofu comme ni ko Ibrahima sama vice président waxee lamb li mu toxloo instant bi ñu mooy ñuy defar mais soxlawul ñuy yàq arbitre yi ñuy ay arbitre local la ñii mënuñu arbitrer ay grand combat te combat yi ñuy yàq nii ñun amateurs yi ñoo ciy perdant ñooy perdant yi rek parce que ñun ñooy dagg suñu billet ñëw war a seetaan combat ñuy wan ñu ay combat yoo xamante ni amul amul verdict léegi après mbër bi day def bind recours recours bi après victoire bi balaa génn fekk lamb ji sàppi loolu taxul nit ñi di dem lamb instant bi ñu toll nii li ñu soxla mooy ñu waxtaan ak CNG bi ñu woolu arbitre yi waxtaan ak ñoom jéem a trouver terrain d'entente parce que tey jii famille noonu lay doxee yow da ngay nekk sa kër sax xëy am ak sa njaboot mais nga woote réunion ñëpp toog ku ci nekk wax li la metti yow mi borom kër bi nga jël sa décision mais mbir xew ñëpp di xaar te arbitre yi boo leen seetaanee keroog euh, ci émission lay tigre bi ëpp luñ seen porte CNG ñu ngi doon déglu CNG bi ñu ngi doon xaar ministre bi ñu ngi doon xaar médiation si diggante bi mais entre temps ñu xëy xëy dégg un bonjour ñu ne waaw léegi rajee nañu si toor Babacar xam nga aj nañ ko 3 ans euh, Malick Ngom aj nañ ko trois ans keneen ki xaw ma aj nañ ko 2 ans mais loolu comme li Ibra wax ci ban Sénégal lañ ne parce noonu li ñu def ni teguñu ko fenn te amul kenn ku ci ànd démb déggante daan ak Gris Bordeaux am na ñu ma ci dégganteel ñoom ñu ngi ci milieu bi xamal nañ ñu carrément ne xeex bi ñoom arbitre duñ ci wéet parce que ñun ñëpp pare nañu bu laajee ñu def journée noire lamb du am sax dinañ ko def parce que tamit foofu lañ toll instant bi ñu toll nii lamb dafa ne ci problème ñuy fexe nu ñuy génnee ci problème bi ñu indilaat ñu beneen problème te ñoom seen mandat léegi mu jeex mais bu fekkee dañu bëgg a dem nañu dem ci jàmm ñu def li ñu def liggéey liggéey bu rafet bi ñu liggéey ba toll fii tamit bëgg ko yàq bu fekkee dañu bëgg nañ dem ci jàmm bu fekkee mënatuñ ñu bàyyi ñeneen ñuy fi boo xoolee CNG bi am na ci ñoo xam ne ay mag lañu bi ñu ministre bi recevoir wax nañ leen ko am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci géew bi dañu feebar waratuñ sax jege ay mbër parce que loolu du seul sécurité tey kuñ ci dal sa kaw nga gaañu làmb mooy am problème risque yooyu yëpp ñu ngi koy jël ñoom ñun ñu ngi ci làmb ji li ci xew yëpp xam nañ ko mais nañu defaraat affaire yi dañu defaraat toogaay xam ne làmb famille la ku xool euh, Malick Ngom li mu def ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo geste boobu ñëpp ko rafetlu ñun amateurs yi dañu sax dañ koy décorer parce que dafa def geste noble Eumeu Sène daanu mu gis ne Eumeu Sène daanu na mu gaawantu génne làmmiñam loolu geste la bu ñëpp rafetlu te pourtant du rôle am parce que moom rôle arbitrage lañ ko fa tegee loolu sécurité euh, euh, médecins yi ñoo ko waroon def mais mu def loo xamante ni tey ñëpp a ko rafetlu lamb loolu soxla mais soxlawul wàññi moment biñ toll nii ci defar lañ toll combat yi mag yi taxaw ñu continuer liggéey liggéey bi mais combat arbitre yi ñuy bëgg a indil yi ñun duñu duñu arbitrer suñu lamb parce que xamuñu règlement yi maîtriser wuñu mbër yi présentation mbër sax léegi amatul dañuy jékki-jékki rek siffler combat te mbër dañ leen war a taxaw présenté diw moo nekk nii diw moo nekk nii am yëg ñu yëkkat seen ay loxo amateur yi xam ni diw mi écrit bi la ne bu jël amee nga mën a coché jékki rek xamuñu heure mi xamuñu dara mais loolu tamit ci ban dëkk lañ ne waaw euh, dégg nga li président wax mais dans bu fekkente ne euh, fa CNG ŋànk na fa si jamais mu téye fa ana ban taxawaay la amateur yi war a taxaw. grand dama laax wax ne la béy kenn du ko rey ci ron lal. béy kenn mënu ko rey ci ron lal te yënguwut nit ki su demee bay dund lu ko metti faw mu génne ko ci xolam mënul ñàkk ñoom nag euh, liñ mën nun wax suñu jàppee fi ñu jàpp nekk jàpp ne li am ñoom kon dañ jàpp ne kon ñoom moom la am ji spécial parce que fekkee teg seen règlement kenn di contesté ñoom ñooy jël sanction yi leen neex ñu teg ko nit kenn amul droit wax ci kon su boobaa ñoom ñu bàyyi leen ak lam parce que boobaa ñun xam ne ñoom ñoom moom lam maanaam euh, lamb ji tëgg yeen amateurs yi ngeen toog jàpp seen. bien sûr bien sûr parce que ñun ñoo gën a dee ci lamb ji ah. ñun amateur moo gën a dee ci lamb da ngay dagg sa billet combat bii tax laa ñëw combat boobu amut ndax dañ lay dellu sa mais duñ la ko delloo saa booy dem lamb am na combat bu bu la motivé ba tax nga dagg sa billet mais combat boobu mu am ak mu ñàkk am duñ la delloo sa xaalis promoteur bi dina jot xaalisam CNG dina jël frais d'organisation yow mi dagg sa billet moom sero ngay taxaw. nga seetaan ak nga ñàkk seetaan kenn du la remboursé kon ñun ñoo gën a son ci lam mais seen seen na bàyyi xel mais kan moo fa faatu bërki dem rek ñoxor mais war na ñoo xam ne àdduna lu mënta am amul da nga fiy nekk tey suba nga jóge fi képp kuy def te defoo loo xam itam pertement lay jural rek muy fii muy fanu jëm parce que mbir boo ci nekkee da ngay yaatal parce que lu mu dee dee tey arbitre yi problème bu ñu am boo wéroon Sénégal gépp buñ dee 1000 personnes mën nga jàpp ne genwal gépp dañ d'accord liñ def du yoon waaw kon ñoom bu ñu bëggee ku di def li ñu def pare duñ déglu askan wi kon su dans que ñoom seen bopp lañ fi nekkal seen bopp lañu fi nekkal nañ def attention te xam ne lii Sénégal la ñoo ko bokk ku fi def loowaat dem ëllëg si biir dañ koy waxtaane rek yow yaa ci am gàcce mais li wétta woo arbitre yi nañ leen delloo seen place ñu arbitrer euh, maintenant combat bee passé mais waa ji dañ ko daan ba Sénégal gépp ne xam ne daan nañ ko mais ñàkk a maîtriser règlement yi moo tax ñu ñëwaat bi ñëwee waaj da koo dóor ba deelandoor na def mais est-ce que ñoom ñu ngi xalaat ne loolu am na ci biir lam ji am na ñoo xam ne ñoom ñuy wax di jël di son yi mën nañoo toog 6 mois duñ dem lam combat capital rek la ñuy dem muy combat bu mag à part loolu du ñu jege lam du amuñu sax temps u seetaantele ñun ñi nga xam ne nag chaque jour ñu ngi ci lam ji di seetaantele tëngee ak Cees fu lam am ñu dagg suñu yitte dem fa xam nañu li xew ci lam ji bu baax nañ bay caaxaani te bàyyi arbitre ñu continuer seen liggéey bu ñu leen mënta yokkal seen salaire mais ñu négocier ñoom xam nga nit dinañ le fukk laa bëgg yaa ngi dégg ngay yem ci juróom yi ko doon jox du tee ngeen continuer ànd mais loo gis a woo waxtaan ak ñoom bu ñu leen yokkoon itam négocier ak ñoom ñu continuer ba jamono laaj ñu war leen a yokkal ñu yokkal leen mais xëpp leen ba pare nap leen daaj leen ay sanction mais c'est pas normal ñun d'accord ñu ci loolu ñun waa seen amateur loolu leer na euh, président nga mën a tàggatoo mbokk waaw tàggatoo bi mooy vraiment di ñaawluwaat rek encore une fois li fi xew nii parce que yaakaar naa comme ni ko Ibra waxee rek fii Sénégal la fii lépp lañ koy waxtaanee am na nag loo xamante ni yaakaar naa ni jarul sax ñu si yegg ñun su ñu amee ku ñuy waxal ministre bi la ñuy woo parce que lii yaakaar naa du c'est la première fois président Alioune Sarr xam nañ ko ci loo xamante ne moom saa bu matee rek day tàgg te làmb doxewul noonu ministre bi nag la ñuy di ko wax ni ko bi ci loxoom ko teg muy CNG muy képp ku fi nekk di yëngatu ci wàllu sport moom moo la coiffé kon ñu ngi koy wax ne ko na jóg si lii nii moom rek lañu ciy xaar na fexe nu ñu toogee ñoom ñëpp ñu dajale ci benn table waxtaanee làmb ji parce que làmb ji fi mu toll nii soxlawul lii nii te lii nii ñu ngi koy xeeb mais mën na indi problème bu bu rëy rëy parce que arbitre yi aussi dañu bokk ci làmb Sitor ñëpp xam nañ ne depuis 95 ba léegi mu ngi ci làmb ji maîtriser nañu làmb ji xam nañ lépp CEDEAO bi de saa bu amee bokk na ci arbitre professionnel yi arbitré comprendre mais tout récemment ñu fi déclaré ni dañu war a indi VAR ci làmb ji mais biram da ngay ñëw seetaan làmb suite am mu leer la ne yow mbër mi moo daan ñu jox beneen mbër bi victoire mais ñu war a teg vaar nga xamante ni tey jii yow ci saa si boo dugalee recours ñu ñu jox la sa victoire mais da ngay gis combat boo xam ne day jàll 2 semaines 3 semaines ba nit ñi fàtte nga xëy gis ci sunu làmb ñu ne waaw diw après léegi amateur moom mooy perte te yooyu noonu ñoom am nañ ay moyens yu ñu indee vaar ci biir stade bi am nañ seen i bu bu combat amee litige bi mën nañu arrière cassette bi ñu xool balaa ñu joxe victoire mais yooyu yëpp ñoo ngi koy def parce que recours yi mbëri di dugal xaalis boobu ñoom lañ soxla mais soxlawuñu amateurs yi yóbbu victoire combat Alioune Seye gis nga ko bii passé ak ak ñàkk lu Ibra wax ñun amateurs yi ñoo perte parce que ñun ñëpp dagg nañ suñu ay billets ñëw toog seetaanuñu combat te kenn remboursé wuñu suñu xaalis loolu nag moo fi war a jeex CNG bi ñu ngi leen ñaan nañu toog su autour d'une table ñoom ak waa arbitre yi ak ministre sport bi Matar Ba ñoo ngi koy lancé appel di ko wax ni ko jeune amateur depuis boobu ba léegi ñu ngi am lu leen metti ko ñaan moom mu fexe nu ñu rassemblé woo ñu toog ñu lijjanti lii parce que lii nii nekk na problème boo xamante ni ñun duñ ko bàyyi parce que pare nañ pour ànd ak arbitre yi lépp lu mu laaj dinañ ko def bu laajee ñu boycotté lamb ji nañ ko def parce que arbitre yi ñun ñoom lañ xam te ñoom ñoo maîtriser lamb ji ñii kenn defal leen ay formation ay arbitre local lañ jëlee ci dëkk yi indi leen maîtriser wuñ lamb ji te ñun aussi dañuy bàyyi suñuy activité dimanche di bàyyi suñuy famille di bàyyi suñuy njaboot di ñëw ci lamb ji kon dañuy bëgg tamit li ñuy seetaan mu amal ñu njariñ mais da ngay ñëw lamb ba ñibbi doo gis doo gis victoire doo xam ku daan comprendre nga ñoom ñuy avantage wu ñun ne ci ay problème loolu Sénégal doxewul noonu encore une fois di ñuy waat monde lamb yëpp di wax ni kàddu yi bu jubee ci yàlla la bu dëngee aussi ñu ngi jégalu di wax ni ñun defar rek moo ñu tax a jóg parce que ay xale lañ nekk ci lamb ji te lamb yaakaar naa aveniru lamb mu ngi ci xale yi ñoom ñii nañu xam ni démb am na ñu fi nekkoon jóge fi ñoom ñu ñëw ëllëg dañ fiy jógee ñeneen ñëw li ko Ibra waxee kon nag nettali bi na doon lu rafet na nañuy fexe toujours di def lu rafet pour ëllëg parce que fii fii dara dara dara saxu fi képp koo fi mënti gis rek bisa ngi ci bis yi dina fi jóge kon nag na rafet parce que ñun ñëpp benn bopp lañ kenn mën ñu xar ñaar jërë ngeen jëf Moussa Fall yaa ci dégg mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV li duuf ci nag bi moo xejul ci cin li waaye li président Gora wax président Ibra Diouf wax ko mooy kàddoog jeune amateur yi waaye nun ñu ngi ñaan ak nu mënti demee yàlla na jàmm sax ci Sénégal waaye jàmm dellu ci làmb ji boo xoolee ni président toogee ak nu ñu toogee dafa mel ni ñetti nga genaay la vert jaune rouge kon presque drapeau Sénégal lañ fi toogal ak noo ci mënti dégg ñu ngi nuyu ñëpp di leen dox dig daje du ñu bàyyi dañ leen di toppal làmb ji benn par benn ba fu muy mujjee jërë ngeen jëf.